ngeen nekk ay centaines ñu tànn leen yéen indi leen kon am na loo xam ne mi ngi ci yéen kon nag da ngeen di jéem def seen bopp ñu xam ni yaa ngi ni doog a tàmbale te dangeen jël option pour nekk ëllëg un professionnel kon lépp lu professionnalisme di laaj ci loolu ngeen dox te un professionnel du du du rek maanaam euh, ci terrain bi la en dehors tamit professionnalisme bi gën a am solo jour boo bëggee tey jii nii sa carrière gudd loo mën a def ci récupération loo mën a entraîner entraîner ko ci biti boo ñëwee nga récupérer ko day tax nga gën a am fraîcheur day tax sa carrière gën a gudd parce que boo gisee ay ñoom makalele yooyu en ay temps bi ñuy jouer saa yu ñu entraîner bu ñu paree avant tout bu ñu demee dinañ tëdd benn deux heures de temps boo xam ne bu ñu def dara pour récupérer effort bi ñu defoon te ay xale ngeen peut-être mën mais après dans l'avenir ngeen di li leen doon wax récupération lu mu baaxee ci jour de football kon nag beneen bi maanaam moom mooy ci côté tactique ci côté thème Sénégal des fois ngay ñëw wax expliquer leen thème bi ci séance lundi bi mardi boo ñëwee pour ñu defaat thème boobu foofu expliquer waat en général seen coach yi bu nekkee noir la doo leen bàyyi nopp bu baax mais bu tubaab bi taxawee ngeen nekk ay complexe di dégg bu baax ak nopp bu baax est-ce dégg ngeen li may wax maanaam ci loolu moo tax ma ne nag da ngeen pour nekk un professionnel ëllëg kon def leen lii war ngeen di déglu tactiquement ngeen taxaw parce que football dafa ànd ak tactique. jaajëfal les téléspectateurs Bantamba TV muy émission Bantamba foot 100 pour cent football local avec l' international As Mamoun l' avocat du football local. comme li may wax rek tey nag dama seet si ndaanaan bu mag un acteur sportif un grand dirigeant du football sénégalais ñu koy wax Aline jaw président ki nga xam ne mën nañu wax ni gis nañ liggéey bu mag a mag a mag bi nga xam ne mi ngi koy def ci football Sénégal particulièrement mi ngi ci académie yi gis nañ tamit nag comme ni ñu waxoon rek ci jamono yee passé tijji na benn académie bu mag a mag a mag ñu koy wax euh, talent talent foot waaw defe naa talent foot la de suma juumul rek comme ngeen baal ma ko académie talent foot comme ni ñu koy waxee rek muy académie boo xam ne macha allah gis nañ si mu def ci benn recrutement ak ay test yoo xam ne maanaam wër na Sénégal di wax ni nag Alioune Badara tey ñëw nañ gis nañ euh, jamono yi passé yaa ngi woon ci tests yi gis nañ nag jamono yi yaa ngi ci installation bi ba tey jii mën nañ wax ni euh, li nga doon wut mooy matière première bi li nga doon wut mooy les les Sadio Mané les futurs Sadio Mané gis nga leen. ñu lay ziar. waaw maa lay ziar maa lay ziar As di la di la jaajëfal baax di jaajëfal sa caméraman bi aussi euh, di rafetlu toujours sa liggéey du ma taay di ko wax parce que da def liggéey bu am solo ci football local bi kon fu ñu toll ñun dañ la war a en tant que acteur. Euh, di wax ni rek contentement lañu am ci d'après li ñu doon wut mooy détection yi yàlla dogal na def nañu ko ci jàmm euh, ñu am lim bu toll ci huit cent et quelques personnes yow je pense que tu étais là-bas tànn nag yombul mais yàlla dogal tànn nañ li ñu jàpp ni moom mooy li gën ci ñun wala lañ jàpp ni ñoo gën ci ñi teewal foofu ci jotaay boobu noonu kon nag jàpp naa ne am nañ yaakaar ci li ñu tànn te gis nañ ci ay talent yoo xam ni euh, wax dëgg yàlla d'ici peu de temps war nañu mën a dégg ci footballu Sénégal. comme ci loolu la ñuy yëngu ci loolu la ñuy dox moo tax daal ñu am satisfaction totale ci détection yi. am satisfaction totale ci détection yi comme ni ñu koy waxee rek ñi gisoon ci jamono jooju tamit gis nañ nga amoon benn staff boo xam ne tamit gis nañ ni ñoo doon def détection bi est-ce que tey jii ni mën nga ma wax euh, ci côté entraîneur yi équipe bi ak euh, nombre de personnes yi nga xam ne tamit ñu ngi fii ci académie bi interne. waaw parce que nombre de personnes yi euh, je pense que ñu ngi ci pratiquement. vingt huit 28 28 personnes euh, bu ko ëppul sax euh, ñi nga xam ni tey parce que am na ñoo xam ñi ngi sama kër fële euh, parce que logement bi xëy nañ ñi doon demandé dafa xawoon na bari trop te ñëpp bëgguñu mun ñu encore. ànd nag staff boo xam ni jàpp naa ne ñoom ñoo ma gën a déterminé sax ñoom ñoo ma gën a sawar ci académie bi parce que ñu ciy xëy di matin au soir nekk ci yëngu-yëngu centre bi kon amuñu du dul di leen sant di leen gërëm parce que ñoom ñoo démarré détection y depuis loolu ñoo fi nekk. ah ku ne xam ne na dafa yaatu euh, ñu dañu yaatal ba nga xam ne tey kenn ku nekk jàpp nañ ne expérience bi nga am mën nga ko apporter ci académie talent pour pourquoi pas ñu taalal loxo ne la ñëwal parce que ñu ngi ñuy sollicité nag un peu partout ay entraîneurs yu ñuy woo et tout ñu wax ni dañu bëgg ñëw liggéey ci projet académie bi xëy na gëm nañ projet bi moo tax bu fekkee wàllu internat bi moom ñi nga xam dañoo logé euh, daanaka ñu ngi ci ay 28 et quelques personnes waaw boo xoolee logement bi euh, dafa xawoon saturé tuuti te dafa bariwul ay demande aussi ñoo xam ni ñu ngi ci régions yi bëggoon loose mobilisé jël beneen loo logement muy deux yoo xam ni euh, ñenn ñi daa fa yóbbu ñenn ñi ma indi leen fii ci logement bi juste rek pour seen yaakaar aussi bi nga xam moom la am ci académie talent foot euh, yaakaar bañ a tas daal. comme ni nga ko waxee rek euh, gis nga dem nga ba nga xam ni sax logement bi nga am ni daanaka mun nañ wax ni euh, xaju effectif bi nga yore xajuñu ci gis nañ loolu tamit gis nañ macha allah ci côté marketing gis nañ euh, académie bi maanaam Sénégal gépp ñu ngi koy tudd di ko wax waaye tamit dafa am ay cahier de charge yoo xam ne dañ koy xaar tamit ci académie maanaam ci côté mooy ci côté ay entraîneurs yoo xam ne dinañ war a mën a génne talent bi nga xam ne ñu ngi ci joueurs yi ak surtout ci seen côté éducation ak yooyu yëpp est-ce que yooyu yëpp yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw ñu ngi ci bàyyi xel bu baax boo xoolee moom laa la wax léegi am na entraîneurs yu fi nekk euh, am na ñu xam-xam ñu ngi gérer seen liggéey ni ñu ko war a gérer mais li ma wax mooy football aussi dafa yaatu bon ñëpp ci xaj xeebuñu kenn tamit euh, nawuñu xam-xam kenn aussi. mais nag képp koo xam ne jàpp nga ni sa euh, expérience bi nga am ci football am na lu mën apporter académie talent foot bon dañ lay woo nga ñëw parce que ñu ngi ci xool ñu ngi étudier ay entraîneur ñu ñuy seet si maa ngi waxtaan ak ñoom di xool kenn ko sa niveau fu mu toll parce que booy bon jàpp naa ñi fi nekk dañoo am talent talent bi ñu am nag moom il faut entraîneur moo ko mën a génne ci ñoom alors mooy liggéey bi mooy formation bi ainsi de kon yooyu daf ci am solo académie surtout boo amee projet boo xam ni xam nga fi nga jëm yow il te faut des bons entraîneurs loolu c'est automatique bon c'est pas parce que dañuy euh, sous-estimer ñi fi nekk wala ñi fi nekk c'est des bons entraîneurs mais nag dañ ko yaatal képp koo xam ne gis nga sa bopp ci académie bi boo ñëwee ñu étudier la xam ne kii kat mën nañu apporter dara pourquoi pas ñu installer ci groupe bi. waaw parce que tey jii nii mën nañu wax ni li tax sax ma poser la question boobu dangay nit koo xam ne dafa am foo xam ne fa nga nekkoon te da nga fa defoon lim liggéey bu remarquable ñu gis tamit fi nga nekkoon. maanaam bu ñuy wax ci côté talent dañ ko fa gis ba pare gis si ay jours yoo xam ne tey jii nii macha allah dañu prouver sur le plan national ak sur le plan international. kon Alioune Badara dafa am beneen bët boo xam ne tamit le monde sportif tan la koy xoole te xam naa ni la monde sportif sas nan la. waaw loolu laa di wax chaque jour man nee naa leen ñun académie bi euh, suñu bët dañ ko teg ci jàmbaar fi mu toll. maa ngi koy briefing keroog booy dañ ko teg ci génération foot fi mu toll. ba ci Dakar Sacré-Cœur donc ñooñu la ñuy xool instant bi du ma ne sax pour yem fi ñu yem mais pour jéggi leen parce que loolu mooy idée bi ñun caaxaanuñu ñu dañuy liggéey boo liggéey nag dafa am ma liggéey da nga def liggéey te doo ci boole benn wax ñu am yaakaar ni gëm-gëm la rek tey ma di Touré dafa am fu mu démarré euh, Sayer Seck am fu mu démarré ku nekk am fi nga démarré euh, ñun aussi ñu am fu ñu démarré boo ñu ngi sant yàlla nag parce que xëy tey fi ñu démarré. bari na académie yi doo ko judd yoo xam ni démarré wuñ noonu académie yi fi démarré yëpp xam nañ ni mu demee dawal nañu 9 ans 10 ans doogu am logement loolu xam nañ ci lu bari dawal nañu 9 ans 10 ans dooga sol loisir loolu xam nañ ci lu bari wax dëgg yàlla ñun euh, dañ ne bërëg ubbi suñu académie euh, créé suñu loisir créé suñu logement suñuy du mën a benn mais suñuy logement parce ñaar la kon loolu dañ ci sant yàlla c'est pas facile tout le temps nit ñi dañ ma ci interpellé li ma wax ni waaw mais président vraiment affaire yi nag yow dëgg nii rek ubbi logement yi moom am ñoo xam ne dañ maanaan ubbi tey jàng tey loolu lañ may woowee waaw d'ailleurs ubbi nañu am nañ suñu logement loge nañu ay xale euh, xëy na yor leen fi ñi ci war a jàng ñu ngi jàngi di ñëw et kon loolu sant yàlla la parce que ñu ci bari ay 3 ballons lañ démarré ñun on a démarré avec 25 ballons pratiquement te pareeguñu ñu nga xam ne ay doctorants la académie bari commencé ñu ñu def démarrer suñuy may ak suñuy loisir te ba léegi pareeguñu li fi war am yëpp ci équipe dina fi am si kàttanu yàlla euh, ñu ngi ci lancé boobu euh, fas liggéey rek xam fi ñu dem objectif bi si kanam la mooy essayer euh, pourquoi pas li ma koy wax kadde comme junior jël coupe du Sénégal pourquoi pas bi comme dugal naa ci senior léegi dañuy compétir damay compétir senior en sori trop ci championnat bi loolu yëpp lu war a mën a nekk la parce que liggéey la rek kenn moomu ko. te ñu ngi ci lancé boobu avec staff bi nga xam ak staff bi nga xam ñoom laa àndal ñu ngi ciy liggéey. waaw comme ni ko waxee rek foofu laa doon ñëw est-ce que da am affiliation wala da nga am ak club boo xam ne moom ngay joué. waaw parce que lépp comme li ngay wax dafa mel ni da li ñu nit ñi di wax moom moo am ubbi tey jàng tey. <laughs> waa xëy na loolu waaw dañu am club bu ñuy joué euh, euh, dañu am club bu ñuy joué boo xam ni voilà euh, ñu ngi ci waxtaan yi sax pourquoi pas ñu seede ko. Ah. maa ngi ci loolu mais nag dans le premier temps. bon loolu la ñuy def jouer ak club nga xool aussi lan la ñu jox comme première année bi déjà ñu bari ñu jàppoo ni du ñu compétir parce que yombul euh, tey nga ubbi tey rek commencer compétir euh, inscrire coupe du Sénégal championnat et tout yombul c'est pas facile mais nag lépp sant yàlla la parce que ñun mënuñ suñu bopp dara mais lépp yàlla suñ borom mooy dogal te xëy na moo xam coono ñu daj ah moo xam ne war nañu mën a fayee lii daal mu fayee ñu ko. Lex comme ni ma koy waxee rek asmaamun ci lii rek lay dox bëgguma rek di génne valeur bi ak lumière bi nga xam ni les dirigeants yi nga xam ni ñi ngi bëgg football Sénégal dem ci kanam maanaam ci ñooñu mënuma leen bañ a jox sama micro mënuma bañ a wax ak ñoom mënuma bañ a génne lumière bi ci ñoom kon nag encore une fois comme may wax rek ci Alioune Badara gis ngeen li nga xam ni tamit mi ngi koy def mu ngi koy tooñ di ko wax ubbi tey jàng tey parce que am na ñoo xam ne dem nañ 10 ans doo ko am li nga xam ni tamit moom la moom la moom la taxawal mooy def académie interne ak externe loolu tamit dafay lew xam ne maanaam dañ ko soxla ci sunu réew surtout ci sunu petite catégorie bi léegi nag avant may dem rek ci les trois dernières questions bi rek damay ñëw parce que gis nañ comme ni nga waxee def nga détection yaa ngi ci maanaam comme ci installation beeg ak yooyu yëpp est-ce que équipe bi tamit commencé na trouver na marque bi wa ba mën a jouer ay match amicaux waaw dafa naa ni benn match amical sax lañu fi jot a joué muy ñu nag olympique de Dakar euh, en cadet euh, booy gagné leen par 3 buts à euh, loolu suñu premier match boo xam ni mooy suñu match amical yi nga xam moom la ñuy joué am nañu yéene aussi joué côté senior bi ak junior bi dañoo nekkoon ci préparation nag. boo xoolee semaine bi yëpp dañoo nekkoon hivernal pratiquement déplacé booy place ak yooyu xëy na moo tax mais ñi ñuy demandé aussi ay matchs amicaux yoo xam ne war ko mën a jouer euh, euh, dinañ dem fépp parce que amoon nañ match bu ñu programmé woon mais comme euh, dañoo duggoon hivernal moo tax mënuñu ko woon valider mais préparé nañu aussi pour jouer li ci ëpp lu ñu daan nag mooy détection yi mooy ay opposition suñu biir loolu suñu gan yi ñu doon am ñu ñu ko doon ñu ñu ko doon imposer parce que comme dañuy déplacé Europe ba fii ku ci mel ni Jean-Marc nga xam ni sama partenaire sama xarit la donc sama lépp la Jean-Marc Belfond bu ñëwee fii ànd ak avocat am mu ñëw ba fii pour seet si académie bi kooku faa ñu tegal ko marché mu xool xale yi euh, bu ñu ci jógee seen bi ci topp ci la ci waa Russie yi ñëw li euh, samay xarit ci football euh, ñëw aussi imposé ma à ce que dañu bëgg xool UDCR yi ñu tëggalee mas aussi opposition ñu xool donc ñoom ñoo doon poussé à ce que am nañu amoon rejet du passé mais maa ko rejeté parce que mënuñu génne booy tout le temps euh, hivernal ñëw di leen joué loo match yi mais am nañu ak italien yu waroon ñëw jeudi jeudi bi passé ñu ngi fi sax d'ailleurs ñu béeguñu peut être xam naa balaa ñuy dellu dañ tëgg match pour xool opposition yooyu daal lañ ëpp lu ñu doon joué pour l'instant mais xam naa d'ici seen projet dañ entamé ak match amicaux yi incha allah léegi ñuy ñëw comme li ngay wax rek ubbi tey jàng tey noonu laa lay woowee léegi maanaam loolu rek laa fi gis macha allah comme li nga wax noonu ubbi ci benn année lex nga gis ko tey mu am partenaire am yi sur le plan international ñëw ñuy xool équipe am loolu am na équipe yoo xam ne def nañ fi 10 ans mosuñu am loolu kon relation boobu mu am macha allah dañ ko ci ñaan rek yàlla gën ko ci teg loxo. mais nan ngay dundee sa diggante ak Daaru Salaam parce que tey dañu gis comme li ñuy wax rek ku Daaru Salaam. mënuñu la woon bañ a tudd parce que gis nañ fa liggéey bi nga xam ni moom nga fa doon def gis nañ la sa diggante Galas Mbàkke tamit macha allah mais comme lii am nii tey jii nii amul lenn loo xam ne tey jii nii xam nga rek yaa ngi am na loo xam ne comme Sénégal lañ def comme li ngay wax ubbi tey jàng tey loolu dafa raar tey di am ay partenaires ñi ñëw di seetaan ci sa équipe ak yooyu yëpp loolu lépp dafa raar mais loolu est-ce que amul tey benn euh, comme ay. dama xaw a ragal nag li may wax. maanaam mooy sa digganteeg Daaru Salaam amul benn jalousie bi ci nekk wala benn réero bu fa bu fa mën a nekk. waaw xëy na euh, boo amee réero tey xëy na ñoom indi. waaw aw mag ak Daaru Salaam te boo amee zalu zalu boobu moom dafa am à 100 pour cent mooy euh, dañoo zalu ci man wala xaw ma waa nit ki da nekk mu tuddoo ko yéene. mu avancé donc maa ngi ci doon dégg ay détails comme hmm, wax dëgg yàlla man li ma daj Daaru Salaam euh, defe naa ni dama jëlee ñu nekk ci staff bi wala ñu jege Daaru Salaam mais picc yi naaw sax mën nañu seede ma li ma daj Daaru Salaam loolu ñëpp ko xam man daana ko Daaru Salaam ñëpp mën nañu xam parce que xëy na effort yi ma fay def ci ma fa nekkee woon liggéey naa fa nag liggéey bu am solo. Euh, am na fu baax a baax a baax fu ma euh, teg équipe bi fekk naa ko ci lu baax fekk naa ko ci fu baax mais am na lu ma ci yokk kon tey euh, euh, jaaru na nit ki bu nga nekk di liggéey bu dee benn fan la sax du ñàkk am na ay secondes yoo xam ne defal na ko ci lu baax kon man du ma xarab wax dëgg yàlla tey Daaru Salaam ah bu ñu fi créé jalousie loolu ñoom la mais man amul ma a jàppal sama liggéey laa nekk ànd nañ pendant quatre ans di liggéey benn affaire bi may wax rek sa Sénégal yëpp xam ko aussi ñëpp ñëpp bàyyi ci xel mooy ñëpp xam ni man je ne suis pas je ne suis Salaam moo ko ci olof àdduna yëpp xam ni Darou Salaam mosuma fay salaire parce que ay écho dama ko ci yàgg di dégg donc mosuma def émission nag wax ci Darou Salaam wala dara parce que ba ma wanee wane ginnaaw wan leen ginnaaw maa ngi ci leen. man su souhaité tey ñu ñaanal ma rek ma dem parce que li tax mu indi réponse boobu dafa am publication bu gisoon ñu mm-hmm. def ko avis au au public. Mm-hmm. jaadu na nit ki nekk ci entreprise comme tous les autres entreprises. Mm-hmm. jóge na fa c' est tout à fait normal nga def annonce wane ne kii kat nekkatu fi bàyyee na dafa def fii boppam loolu c' est bien beau mais bu jeemoon foofu rek coow du am mais lañ ci teg ci suuf donc mooy loo xam ne lu ma naqari la naqari aussi ay nit. lan ci suuf. waaw li ñu teg ci suuf mu ngi nii li njëkk a bind l'académie foot Daaru Salaam informe le public que le sieur le sieur c'est quelque chose si comprendre bien français c'est comme que nit ki respecté wuloo ko le sieur Alioune Badara Diaw ne fait plus partie de son administration euh, après quatre ans de collaboration monsieur Diaw a quitté l'AF Daaru Salaam et mis sur pied sa propre structure qui n'a rien lié à Darou Salam nous lui souhaitons du succès dans son nouvelle aventure lii lii c'est pas y a rien de mal. c'est pas c'est pas méchant. mais yemuñu foofu ñu ñëw ne en conséquence de cette fin de collaboration les faits et gestes les faits et gestes de monsieur Alioune Badara Diaw ne saurait lier académie Darou Salam qui toute toute responsabilité. quant aux engagements pris par monsieur Diaw ce texte-là ça me fait très mal parce que xeetu yàq der la mais yàlla dimbali na mu ba mënuñu yàq sama der man su ma yàqu der daal sam daal sam du yàq sama der moom dama jéeral li ñuy wax kii ñu bind kii lañ ko binduloo kii ko binduloo mooy Sëñ Galas Mbàkke moo ko binduloo moom mu bind ak kii ñu binduloo yëpp su ngeen taalee confrontation ñu bokk plateau man maay wax mais ñoom bu ñu wax déedéet Daaru Salaam bu ma toogoon seen galas jàkkaarloo maa moom plateau télévision man maay wax mais moom du wax juñu nag doy na borom xel defuma lu bon Daaru Salaam waxuma fa lu bon yàquma fa lu defar kon tey bu ñu xëyee bind texte yemuñ ca di yokk ci yokk yeneen comme ku ko dégg yaakaar ni damaa soit damay mu bootu Daaru Salaam wa ilaa dama def dara doo xam ne Daaru Salaam la parce que nag benn booy bu nekk mbuur moo ma ko yónnee man du xool Instagram bu Daaru Salaam du xool seen page Facebook dama leen na jàmm benn booy bu nekk mbuur moo ko capturé Facebook yónnee ma ko moom yëgul woon sax moo ne waa kon prise da ngaa arrêté Daaru Salaam lii de seen Facebook la ak gis moo xamul sax li xew bi ma nee Facebook nag ma dugg ba boo ci laa gis man nag les commentaires ñoo ma satisfaire ah. dama dugg rek jublu ci commentaire yi vraiment sama xol seddu trop ci ñi commentaire amul ku fa wax te défendre loolu parce que nit ñi kenn fayu leen kenn moom leen ñi fa dugg yëpp xaw ma leen mais kenn ku nekk wax nga li nga xam ne seet na sama xol moo tax poids bi ma tolloon sax pour tontu ko sëñ Galas ak ki ak ki mu binduloo euh, commentaire bi ñu ma xaw a apaisé tuuti degré bi xaw a wàcc bu leen xaw a wàcc mais teewul ma jël audio yónnee ko sëñ Galas yónnee ko euh, ki ki mu binduloo averti naa leen nag ah nañ ma bàyyi bis bu ñu defaatee benn publication façon bu mel nii wax ma ci dara lu ma naqari dinaa génn te dinaa wax tax xam nañu bu ma wax bu ma waxee am naa lu ma wax bon nañu arrêté loolu kenn ku ne ne sa jàmm ne sa liggéey junj nag doy na boroom xel li ma téye ci Daaru Salaam saako la su ma ko doon wax fii ginnaaw suba sax tax ñu bare dañ ma bàyyi bis bu ñu bi même publication wala dara dinaa wax tax xam naa dinañ ko defaat li tax mooy bëgguñu ko avancé am na ci palier bu may séen naqari na ko. dina ma seen feneen forom fi ma ne dina gën a naqari dina jëm a keneen dara bind mais bis bu bindee woon mu wax dina wax loo xam ne bi dañ jàpp seen gémmiñ foofu nag laay am ma ci sori. dëgg la le cri de cœur du président Alioune Badara Diaw. muy académie talent foot dégg ngeen ko li nga xam ni tamit wax na ko ci diggante ak Daaru Salaam di wax ni rek appel bi may def maanaam ak position bi ma taxawee rek mooy ñaan rek yàlla euh, teg ci loxo ñu sotti ci ndox mu sedd guy ndax Galas Mbàkke nit ku baax la ba dara jaw nit ku baax la gis nañ ay année année nga nekk ak moom di liggéey te Daaru Salaam demoon nañ ba nga xam ni mun nañ wax ni ci centre de formation académie yi li muy joxe jour sur le plan international amul benn jour bu ko doon def loolu sax dinaa ñëw foofu parce que moom xam ngeen nag asma moom des fois émission day ànd ak tuuti kaani yooyu maanaam dañu gis Daaru Salaam comme li ngay wax noonu bi nga fa nekkee tamit euh, gis nañ ngeen di def ay transfert yu bëri est-ce que yaa ngi ci doon gis sa <laughs> <laughs> bon day xaw compliqué tuuti ci wax ñun man sëñ bi <laughs> dama ko dama ko jàppoon parce que mbàkke gi mu sant ma leeral nag parce que nit wonoon ba tàyyi li ma wax ni danga ñàkk fayda coono bi nga def daaru salaam li nga def daaru salaam te gisoo ci sa bopp nangam nangam ñenn ñu jàpp ni maa ngi gagné lu dul jeex daaru salaam mais dama ko jàppoon nag cër bi mooy mbàkk gi mu sax ñu ay taalibe lañu bu ñu gisee ku sant mbàkk dañ lay wormaal sëñ Gallas Mbacke man noonu la ànd ak moom ànd moom ci football ànd moom ci laa mbaax gi mu sant rek moo tax ma jox ko cër trop respecté ko mais day dem ba ci biir day mel ni comme si que jaam la la bëgg a jàppee te ànd lu doxee noonu nit bu la cëralee jox la cër da nga xam kii la moo tax ma jox ma cër mais demoon na ba mu xam ne Mor Sop Bantel ma jàppe woon que foog na ma jaamam laa ma xamal ko nag du demee noonu am na lu nekk sama bopp am na lu ma gëm am na lu ma bëgg euh, daa gis sama bopp si transfert gis ma sama bopp loolu du ma ci sori du ma ci wax parce que na moom xam na. man xam naa tey jii tracé bu amoon jox ma dix mille ñu jox ma un milliard Daaru Salaam fayuñu ma dañ ma remboursé fayuñu ma dañ ma remboursé mais nag yooyu du ba ci sori en tout cas daal message mi koy lancé du dara mooy kilifa la ndax ki mu sant na jël cër boobu nga xam dañ ko koy jox respecté ko ci loolu mu bàyyi détails yi bu dee dañ ko koy defloo mu moytu ñu ko koy loo bu fekkee moo koy defloo waateet bu jëm ko teg ci suuf am nañ fu ñu waxee mën nañu wax mën nañu bind te na dafa baax ñun ñëpp a àndi liggéey j'ai fait quatre ans la baax kon lu fa xamul kenn du ma ko wax lu ma fa waxul nit kenn du ko fa wax kon nag du ñu sori ci ay détails message bi ma naqari naqari aussi képp koo xam ne tey xam nga ma ñi ma ci woo bari na kenn ku nekk woo nga ma ak ak la ngay wax am ñoo ci xam ne jox nañu information xam ci Daaru Salaam yàlla xam ne xaw ma ko fa woon billaahi walaahi taalaay kooku journaliste la taalaay jox na ma information yi parce que tamit da koo naqari woon mu woo ma téléphone directement démb explique ma wax ma lu bare bari daal sax loo xam man mi xaw ma ko woon pour waxati rek nit ñi aussi kenn moomu leen man la may def def daal sam def naa ko fa passé na passé na damay ñaana Daaru salaan mu gën a yéeg gën a am ay ndam gën a jaay ay jour man bu ko def sax bu ma ñaanal mais na ma bàyyi ma liggéey parce que dëgg-dëgg ñaanam soxla ma ko mais na ma ma liggéey dëgg la na rafet na rafet rek comme ni mu koy waxee ñu leen di ñaanal rek yàlla gën leen di jubóole ndax wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee rek moom suñu sëriñ la ñu ngi koy sàqu rek yàlla mu ñaanal ñu rek lépp li nga xam ne tamit ñu ngi ci liggéey rek yàlla suñu borom teg ci barke di wax ni rek euh, sëñ bi nag comme ni mu ko waxee rek euh, dañ xam naa ne du ñàkk dinaa ñëw seet si la def ak yow émission tamit loolu mun a ñàq comme ni may waxee rek Asma moom l'avocat du football local bëgguma rek lépp li nga xam ne rek euh, mooy jëmale sunu football ci kanam ci loolu rek laay dox daanaka rek ñu ngi ci feewu émission bi di wax ni rek président léegi ban appel ngay def parce que gis nañ comme ni ñu waxee rek dem nga ba mu xam ni benn benn logement bi doyul ba nga ubbi deuxième. ñi nga xam ne ñu ngi ci région bi ak partout dans le Sénégal bëgg a intégrer académie talent foot ban message nga leen di jox ak ban appel ak sa kàddu gu mujj. waaw xëy lu rafetluwaat <laughs> émission bi <laughs> wallaay bëgg moom wax ci lay waaye mais xam nga rek parfois bu ma ci woon wax dëgg dëgg dama ne du ma ko toll. non comprendre naa la yow te jéggi foofu wax nga li nga war a wax. te tey jii nii am na ñoo xam ne tontu nan la. te xamoo leen. te ku la xam xam ne ci lu leer ngay dox. ku la xam ne xam ne si vie sa vision jéggi na sax fii yeneen académie yi nekk. parce que yàgg naa la jël yàgg naa gis ngay wax mais da nga doon nëbbatu parce que bi ma lay jël fële euh, Sénégal Japon. Mm-hmm. benn bal nga amoon nga ne. mais tey affaire yi waaw comme continuer nëbbatu rek. waaw voilà bàyyi laa ko rek. <laughs> naa fi ñu ma lëmbët ku nekk naan fu mu dem di lijjantu fu mu dem di woote fan la dugg man ma sama voyage ma voyage yow bàyyi ma sama voyage moo gën te incha allah seen projet naa voyage waat après ñu toppaat la. mais nag yow nag jékki-jékki yow juddu tey ja déggal ubbi tey jànd tey tubaab yi di ñëw di dàqandee Moscou fépp di ñëw mais loolu koo ko def gars yi bàyyi la xel. waaw ah, loolu sant yàlla la yàlla xam ne dañuy liggéey rek xamuñ dara ci football bi tekkiwuñ dara toolu tolluñu fenn amuñu dara dañuy dañuy góorgóorlu rek xam ni aussi liggéey da koy fay te xol la yàlla di fay man du ma ne lu ma defal doomu aadama yi mais sama xol man li ma def Daaru Salaam kese kese kese foofu laa ko yemale su ma yàlla fayee sama xol rek euh, du ma soxla li ma def Daaru Salaam donc donc su ma ko yàlla fayee lu ma ubbi mu jëm kanam yàlla xam ne ko kon nag duñ ci attardé wu wax dëgg yàlla loolu message boo xam ni xëy na duggoo ci diggante bi jàll na ñu fàtte loolu ñu bàyyi leen ñaanal leen ñu liggéey yàlla dogal ñu monté ak ak jàmm ak salaam yàlla dimbali nañ si sunu ay monté nañ équipe bi deux fois euh, loolu yàlla def na ko kenn mënu ci dara parce que Daaru Salaam ñëw nañu liggéey lañ fa war a liggéey dëgg la du ñu entraîné duñ dara nag mais nag si suñu ay fekk nañ daaru salaam biir deux fois kon nag loolu dañ koy santaat yàlla di ñaanal daaru salaam bu baax di ñaanal seen galas wér di ñaanal ñu fa nekk ñëpp aussi euh, ñu ñaanal académie bi xam ni mu ngi ci yoon euh, li may def nag mooy remercier staff bi ma àndal euh, sant leen baax a baax a baax mun ma lim su ma limee damay juum mais nag ñi fi nekk ñëpp maa leen sant di leen gërëm nga xam ne académie Tanor ubbi na porte ñëpp képp ku fi bëgg moo xam joueur moo xam dara amal Tanor kese doonte test yi jàll na mais ñuy invité par benn aussi pour di leen xool xool seen talent li nga xam tamit boo euh, ñu wut si ñoom bu ñu ko amee boo ñu téye leen loolu la daal di la gërëm asmaa bu baax a baax baax di la sant di kontaan ci yow baax a baax wax dëgg yàlla jàmbaar nga ci ci ci ci yoon bi ñu lay ñaanal rek yàlla defal la li gën ci yow daal. Mm-hmm. première ci région yi parce que xale yu bëri damay gis dañuy bëgg ñëw fii léegi ñooñu lan lan lañ wax dañuy xaaraat ay moment pour ñëw def ci test wala euh, maanaam c'est maanaam déwén rek lay nekk. moo tax ma doon ma doon xulóog euh, gars yi beneen man sama numéro bu leen ko def ci ci kii parce que li may jot ci appel dafa xaw a dafa bari trop trop trop trop mais sant yàlla la sant yàlla tolluñu fenn ci football bi xamuñu dara tolluñu neen ay xale lañu rek dañuy jàng mais nag buñ demee ba ubbi lu mel nii Sénégal ñëpp ku ne Ivoirien woo moom mi ngi ko D'ivoire bëggoon aussi ñëw euh, entraîneur bu ne foofu préparé ay booy bëgg leen indi fii ci académie talent foot donc yooyu sant yàlla la ñu ngi lancé appel boo tamit booy bu fi am talent tamit bu ñu sollicité dañ ko xool par test. dañ ko xool part test invité ko bu fekkee ni jàpp na ni euh, am na li ñu soxla dañu koy récupérer téye ko ci académie bi parce que académie talent foot la ñu wax on cherche que des bons joueurs. loolu la ñuy loolu la ñuy xool ñu am yaakaar ci li fi nekk dans un Euh, dina métti nag mais dinañ débuté nit ñi ñu dóor 100 di ñu dóor 10 di ñu dóor 15 0 yoon garaawul jàng ci jàng lañ nekk bu ñu nee match coupe du Sénégal dañu door 10 ah. ñu jàngiwaat xale la ñu dañuy jàng on a rien à perdre tey la ñu ubbi bu subaa bu ñu nee championnat dañu dóor 15 ñu dem jàngiwaat est-ce que c'est pas important. kuréel dóor aller dóor retour. c'est ça kuréel dóor aller dóor retour loolu mooy que dañuy jàng ñu dañuy jàng kon nañu ñaan rek. ñu bàyyi yenn détails yu sew yi parce que mënuñu wax. am nañu aussi bu ñu wax. te li ñu wax xam nañu ko. waaw nañu moytu daal. dégg nañu moytu lex dégg nga ko dégg cri de cœur bi ba léegi xam naa ne loolu tamit ñu publier metti na ko waaw di wax ne rek euh, dafa war a rafet ndax ni nga fa génnee tamit mu rafet nga génne te ba nga fay nekk tamit jëf nga fa jëf yu rafet yoo xam ne way la bu dul fayati ndax teg nga loxo at Daaru Salaam ba mu mu nekk tey toll fii mu toll li ñuy def rek mooy ñaanal leen ñu accéder Ligue bi moom it ñu ñaanal ko tamit académie bi dox ba mu ñëw fekk leen ci Ligue bi di wax ne rek lex rek nii la koy asma mu di defee l'avocat du football local di leen jox dig daje rek ci beneen émission Bantamba Foot sur la télévision Bantamba TV jërëjëf.